di xaar bis penc it bis penc boobee itam nit waajalewu ko lu gën ragal yàlla ndax bis la bopp bu ñëwé bu ñi wo nit ki ndigal suñu borom jëkk jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy mooy jàngal su ëllëgee yit baat bob moy jëk jib digënté nit ya ak ak suñu borom tabaraka wa taala iqra kitabak fi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq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 mon wax lo rek ñun suñu yoon neeku ci dal koy war fofu nak nekk huwa xalaxkum awwala mar yàlla ba nga doona ko dara yalla fi nekkon so di nga doonatu dara ab dir bu yag yalla fi nekkon ba mel nak ñun ñep xam nañ ne ku nit namoon mu aji makkah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 bàmmeel lañ koy jox bàmmeel moomu ñu jëkk ñu doon dégg ak ñi ci diggante bi ñépp ña nga ca moo leen téye fi mu ne nii mbooleem yonent yépp seen lim yàllaa xam na mu toll ñoom ñépp bàmmeel leen téye fi mu nii ngàbb leen tax na bàmmeel tax na kenn gisatu leen waaye ña ñañ fi doon tudd ñu am lu nekk am na ci ku alxuraan tuddal boppam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 daal dina tekk moom mi nett li mu ne ñun ñëpp ñu maas na tekk seen tekk ja ni mu ko misaala dafa mel ne ku am picc daal ci kaw boppam moo bañ mu naaw bu yëngatoo picc mi naaw tekk jooju muy def nee na ñun ñëpp noonu lañ maas def di déglu ndigal yonent bi nga yoroon benn bant aw yat sëpp ko ci kaw suuf daal di jug taxaw tiim ñëpp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 waye masna tok ci ab jotaay mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kiko ki ko fekke nee na mu mu ne ci armelia ni nii armel yi tuwaay nii jumaay to waji mel ak armeli non la keur yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel meloon ak armel ba legi ci mu séen mu fa nek mu ne waaw ñe luñu def fe ñu ne ko da mel dañuy gasal ku faatu de ab ba mel dañuy gas xabr xabru nag li muy tekk ci luxa mooy euh, lu ñeenti mbir ñeenti mbir ñeenti mbir yoo xam ne bu ñu ci dugalee nit mënu caa génne boppam rek moo loolu moo tudd lañ ciy dugal mënut a génne boppam rek loolu mooy xabr waaye ci wolof mooy bàmmeel diñ xam rek suñ baree mooy ay armel fa bàmmeel yi bare moo tudd armel ya yonent bi na bërët